bagage ñu ne de ñoom buñ buñ ñëwee ñoom xam nga buñ ñu war a buñ war a daaj ñoom dañoo war a sax wax nañu ñoom dañoo war a daaj moo gën xam nga mais ba bàyyi ba onze heures ba ñëpp waaj ñu ñëw daaj suñu bagage gën dëgg du yoon fi mu toll état bi na ñu ñun ñun maa sambilage da da mën a di jaay nagisement dèjà noo sonn suñu sàcc maire rek moo xëy xëy waxuñu dara oh dem ay onze heures bi wàcce lan ñëw daaj suñu bagage li ñaaw na ak suñ tubaab ñi moom xam lu ñuy def moom jaaduwul xëy benn bis rek ñëw daje suñu bagage yi ah ñun moom dañuy xëy benn bis rek gis police yi gaare ak ak seen oto yi nga xamante ni pour daji bagage waaw li ñu ko def ñaaw na trop rafetul ñaaw na man li ma gën a métti sax ni ñu ko defee la quoi xam nga nit boo koy daje dëgg la dëgg la ñoom wax nañ ñu ko te ñaareel bi ñu ñëw la ci tali bi nangu nañ mais nit booy daji boo yónni ñu ñuy daje da nga yónni ñu ñu responsable nga fekk ay boo yoo xam ne ay tuqudi boon lañ ay sàcc lañ ay woyu lañ nga jox na ay arme ñu ñëw dajji lépp du dajji len neexee kenn waxut kenn waxut policiers yi taxaw policiers yi leen aar ah ñu taxaw ñu def leen neex dajji leen neexee loolu loolu moom métti ñu ko dajee daj wu ñaaw ko daj daj yi ñaaw jël ay alal jàmbur ay yow di liggéey di doole am yi nga nekk dëkk boo xam ne yow yow nga nekk ndaw boo xam ne yow tuqudi boon sàcc nga xam nga ñëw ñu woo leen na la kay daj li boo koy def wutal ay xale yu responsable yoo xam ne bu ñëwee dañuy dajji mais gars mais dañ ko teg ci yoon mais ñëw di dee fu jàmm di yàq di fu jàmm amul benn sens maire bi maire maire aslem bi la te man man lii lii dama gëm ne du maire kese bi kese la lii maire bu mag bi sax ci la parce que li fi ñëw démb ci ay policiers li fi ñëw démb ci ay moyens maire bi kese mënu ko joxoon joxoon ñu benn délai chaque jour dañuy ñëw nañu dañ ngoon bu da dañuy ñëw dem leen chaque jour dañuy ñëw guddi waxtu mais des ñëw des fois duñu ñëw démb la leen ñëw waaw daaj bi métti nañu trop yeew rek ñëw ñu gis daaj suñu bagage yëpp yàq suñu place yi jaxasoo ko gis mbalit mi ñu ngi ko def lu gën a métti nit ñi nag mooy jàkka bi si jàkka yàlla ñu ñu dajji ko def lu ñaaw lañ def léegi man damay laaj lu moom dajji bi lu tax mu dajji ko moo métti utul ñu fi ñu yóbbu xëy xëy dajji ñu li ñu bëgg léegi ñu dem taxawaale wala ñu sàcc ji wala ñu def lan lañ laaj lañuy laaj Pape Seck lu mu bëgg léegi mën nañu ko wax ñu ñu xam waaw xam nga grand dafa nekk fi ay man ay 10 ans 13 ans nekk si marché di liggéey ñu jékki-jékki nag da nga fiy jógee te am na fi ñu yóbbul fooy dem ak sa bagage ñu jaay ay kati verre jaay kati ay bool sa bagage am na bagage yoo xam ne ngay buut taxañ ko ngay ndànk-ndànk mais jékki-jékki un jour yàq lépp dafa ñaaw quoi. metti na ñaaw na jaaxal nañu lool lool lool lool lool. jaaxal nañu lool léegi nag ñu ko amuñu benn solution dañuy ñaan daal ndimbal daal dañuy ñaan pour ñu dimbale xoolal ñu yeneen solution mais waaye lii moom doy na waar trop métti na lool lool lool lool lool yàlla ñun tëdd ba guddi rek nga xëy ñëw fekk ñu ñu say bagage daaji ko loolu moom doy waar lool dëgg yàlla jaaxal nañu lool nag ñun lu ñaaw la parce que màggal gaa ngi ñëw te ñun ay borom kër lañu koo fi gis fii rek responsable la amela boo fi gis lu mu gën a ndaw rek kër la yor jàkk ji ñu doon jaamu bu ñu jaayee pare mu dajiwaale ko loolu lu ñaaw la waaw rëccu nañu nag li tax ñu doon voteel ay Khalifa Sall pour mu nekk maire de Dakar ñun fi ñoom rëccu nañu ko moom regrette bien waaw ñëpp Sénégal gépp ba ci Macky Sall sax ñoom ñëpp parce que moo joxe autorité policiers yi ñu ànd ak ñoom jàppale leen waaw ñaawlu nañu ko torop ay Sénégal ay jullit mënuñoo dem ci gaal yi mënuñoo sàcc mënuñoo feni jën di jaayaatuy taaba taaba la ñu yor yor suñuy njaboot yor suñuy waaw lu ñaaw la nag. léegi nag léegi nag lu ñu gis rek xam nañu loolu la ñoom bu ëllëgee agressé rek lu fa yor lu baax nu jël ko nun neexul nag mais nag fii ñi dëkk asalem am na ñum neex am na ñum naqari mais nag mënoon naa gën a rafet Pape Seck ay jaamu yàlla la nit da ngay am yërmande mais Macky Sall ci boppam mooy suñu président ñun ñëpp maanaam dafa seetaan wala mu noppi nañu jàppale ci lii ginnaaw yàlla moom lañ ci yaakaar mën nañ fee jëlee nag bagage mais ñun marché bi mënuñu fee jëlee mais nag mënoon naa gën a rafet bu fekkoon ay doomam ñoo fi nekk wala dara du def lii mu def mais waroon naa ma am loo xamante ne nii maanaam nit du ko def ay jullit sax ay 23 heures laa fi nekk ba 3 heures 31 roñ samay bagage aw ma sax fu ma ko déglu. asalem kër goo làmb ñu tëj seen i buntu kër. sàccuñu ah, agressé defuñu lu bon bi affaire yi amee xeexuñu xuloowuñu defuñu dërëm ba pare nag ñu woo ay boo yoo xam ne dañ doon màndi ñii di sàcc bagage yu jàmbur yi di ko yóbbu di yóbbu alalu jàmbur yi di ko yóbbu loolu rafetul ay paaka ay ñii yor ay paaka ñii yor ay jaasi ñu gaañ ci benn waajoo xam ne mu ngi tudd Imaam Jaxate ñëpp ko xam ba léegi mu ngi hôpital yeewoogul dañ ko dóor ba mu tëdd sàppool moo ko fi jël si ba pare bu fekkee ne da nit da nga ko fee bëgg a jëlee événement yi ah, li tàmbalee police ba ba fii ci jàkka ji patente ñii soixante mille lan fay ñii quatre mille ñii cent dix mille man laa table bu ndaw laa yore quatre vingt cinq mille laa fay juróom-ñaari junni te tëbëg laa ko fay ak korité ba pare xaalis boobu lan dajale fay ci ñi nga xam ne si ñoom ñoo yëkkati lii mënoon naa gën a rafet nag Youssou Ndour nag moo moom télé bi te am na baat ci réew mi te su ma sañoon tamit mu dimbale ñu dugal ci loxoom yaa ngi dégg ba pare li gën a am solo mooy jàkk ji suñu papa yeeg suñu yaay yeeg ñun ñi ñëpp fa la ñuy jaamoo yàlla ñu ñëw daaneel ko teg ko yàqu ndox meeg lépp coupé robinet yi ñu toog ni xoolal ñu toogee nii ba pare Macky Sall bu fekkee dafa ne dafa bëgg liggéey jeunes yi toog nii mu taxaw di seetaan kon kay amul sens ñun ñoo ko fal nañu gestu bu baax ay ndaw lan yoo xamante ne ñun ñoo yor suñu papa yi yor suñu yaay bu dul dara sax màggalu sëñ bamba gii nii dafa am lu ñu fa war a nit dafa looy rus sax wala nga am loo xamante ne sax war nga koo rusee doomu aadama dëgg ñun ñëpp ci réew mi lan bokk te teraanga doomu aadama dara mayewu ko lu dul liggéey ñu am jom am fula am fayda barke Seydina Mohamed gis nga ñii ma wër nii 6 heures du matin bu ñu julee ba pare la ñëw ci marché bi dimanche sax dañuy xëy si kon kooku tal na leneen lu dul xeex wala xulo wala sànni xeer dëgg la nag bu fekkee ne nag dañoo ëpp doole nee ñu jug leen sëñ Fallou mais ñi nga xam ñoo dëkk fii ci gox yi seen doom yi li ñuy def man ñaanuma yàlla def ko barki Seydina Mohamed muy ci góor ñi ak ci jigéen ñi man maa ko wax man Ibrahima Gueye Pape Youssou Ndour nag su ma sañoon maa ngi lay ñaan sama manga nga jàpp ci jàppale ñu waaw nga dimbale waa asalem wax ci coow lii nii mu fay xeexuñu xuloowuñu ñu xeer defu ñu dërëm mais dañoo bëgg ku ñu dimbale bàyyi ñu liggéey na ngir yàlla ah daaji kante ndax xanaa loolu la yàlla dogal waaye rafetlu wuñ ko da wax dëgg yàlla ndax xëy na si leen suturloo si leen wut lu nu yóbbu suñu njaboot ak yëpp dara na gënuñu seen naqar lu dul jàkka ji tojaale ndax mënoon nanoo toj fépp moom bàyyi jàkka ji nga xam ne si la ma si wax tax ñi fi nekkoon tamit di sutur yàlla mën na leen wutal leneen loo xam ne lu dul tey daal di ëllëg waaye jàkka ji moom mënoon na toj lépp bàyyi fi jàkka ji man loo rek laa amoon lu may wax. ah man de li ma gën a métti mooy jàkka ji nga xam ne heure buñ liyaan si la ñu jullee ñu ngi nii tisbaar jot na amuñu fuñ jullee amuñu fuñ jàppoo ñu jël jàkka ji toj ko te ñu doon foo xam ne néegu yàlla la fa la nit ñi jaamoo suñ borom bii di si ñaan suñ soxla di si ñaan liñ war a def ci marché bi. ñu ne ko rajax toj ko ñii bu leen suñu du baax. daji kan de métti ma waaye dafa am lu ma gën a métti mooy jàkka ji nu daj jàkka ji toj loolu dong ma gën a métti man. gouvernement bi man gouvernement bi amul leen lu may wax ak moom maire bi laay waxal Pape moom rek laay wax moom jàkka mu toj rek laa laa moo ma mu def. parce que xam naa fii bu ñu fi war a jóg dañ fi jóg mais moom jàkka ji mu toj man moo mit ko jàkka ji néegu yàlla la mu dem toj ah lii da bàyyi yàgg na fi bàyyi lii moom bés bu ne amoon na fi quoi mais nag bii moom da cee raw quoi ah en tout cas man de aw ma fa man ma jëm maa ngi nii toog daal nii daal laa ko nar ba keroog may gisaa beneen solution quoi waaw ah, mais en tout cas daal métti na jaay nañu doole daal en tout euh, man de joxuñ ma këyit joxuñ ma délai dañ maa bett daal en tout cas yàq nañ samay bagages yëpp. mais nag sant yàlla quoi parce que maa ngi ànd ak wér daal waaw mais daal en moom jaay nañu doole nag mais nag garaaw quoi. te ndawal buur la quoi. kan moo bi. Babacar Sadikh Seck. en tout cas dara ñun ñoo ko gisandoo rek ñun daal saa yi métti rek métti trop nag mais daal en tout cas li mooy sant yàlla quoi waaw. ñun moom soldaadu Baay lañ moom ñun moom lii jaaxaluñu quoi ñun soldaadu Baay lañ laay